Ama Baldé Eumeu Sène Serigne Ndiaye waaw Ndiaye numéro 2 coriace bu Fass da nga koy dugal ci juróomi mbër yi dàq bëri ci laamu ji ak mën a bëre mën a bëre mais gars yi nañ xaar rek sans Fass ay champion ñoo fay génn incha grand frère yi ñu ngi ci ñu ngi ci yoon bi di ñëw tout tànk ñu ngi ci yoon bi di ñëw waaw mais yàlla Serigne Ndiaye de 2 da koy dugal ci 5 mbër yi dàq bëri ci laamu dafa mën a bëre yoo xam dafa mën a bëre loolu moom du ñu may nettali man fekke naa premier combat ba léegi maa ngi koy topp. mën a bëre moo tax ma boole ko ci parce que dafa mbabat da koo toj waaw fi ne nii mu luñ teg ci mbabat bu ñëwee da ciy force da ciy lekk force loolu la ko may mën a bëre quoi waaw te lamb incha allah arène bi da ciy jël wàllam. mu ngi ci yoonam en tout cas kafu ci réew ci question suivant bi euh, rakk ji bëre fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci mbër mbër solo ci moom mooy. téye boppam quoi dafa war a njëkk. non yi nga may jox benn bëre bi mën a bëre am fit ñeme entraînement ak am gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci. ëpp solo mooy entraînement moo njëkk. waaw avant boo entraîné wul gàllaaj boo ko amee te entraîné woo mënoo daan kenn waaw. entraînement daal mooy priorité mooy mooy paie euh, question suivante bi raka ji ngi yow nga war a ji sa jouru combat. ñu wala téléphone ne la allo Thiatou face dafa am règlement bu bees bu wacc ñu ne la yow sa bëri sa fit sa entraînement ak sa gàllaaj ñent yi xaw moy complété mbeur mi ñu ne la ñet yi nga yóbbu lamb ja nga bay fi benn bi wala do ban ngay bay sa fit sa fit sa bëre sa entraînement sa gàllaaj ñent yi mo lay complété mo lay motali ñu ne la ñet yi nga yóbbu lamb ja nga bay fi benn bi wala do ban ngay bay bëre bi la yóbbu bi fit bi entraînement bi gi ban ngay bay non boobu du ma bàyyi benn. doo bàyyi benn déedéet bàyyi benn. nga toog bañ a bëri moo la ko gënal. ñeent yi boo ci naree bàyyi benn waaye bu leen dicté sa waaye bàyyi mu tontu waaye ñeent yi boo ci naree bàyyi benn nga toog bañ a bëri moo ko gënal. non non damay bëre. léegi nag ngay bàyyi ñett ñeent yi. ma moo ma gënal ma toog. nga waaw. nga yóbbu bëre fit waaw ma bàyyi gàllaaj. tax mënoo bàyyi bëre bi. bëre bi daa na si man. lu tax mënoo bàyyi entraînement. bi dama ko bëgg chaque jour maa si tax mënoo bàyyi fit bi fit bi moom dama ko judduwaale waaw dama ko dama ko judduwaale su bu gàllaaj ngay bàyyi gàllaaj laay bàyyi dem nga yóbbu bëre fit entraînement kese question suivante bi rakk ji bi nga dalee seetaan lamb ba tey ban combat nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog télé bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko Eumeu Sène Gris Bordeaux Eumeu Sène Gris Bordeaux 2011 parce que boobu noonu damaa toog ak sama papa quoi ak sama papa bu ndaw may seetaan lamb ji lamb ji miti Gris Bordeaux jàpp Eumeu Sène dóor ko ba R4 bi tippi noonu ma sama papa mbër laa bëgg a doon sama maagee père na ma da xaru quoi waaw maa nekk lu ndaw. 11 ça fait 10 ans on est en 2021 ko génne say at ñaata moo ci de. waaw li ma lay wax nii lu lu la moom maa nekk tur tànk ne ko dama bëgg a nekk mbër mu ne ma da ngay xaru mënu ko gëm quoi mais loo gëm rek li ma la wax sànq rek gëm-gëm moo lay may lu ne. Eumeu Sène Gris Bordeaux 2011 ba boobu la gën a ma trop si làmb yow sa wàllu bopp bi nga dalee bëree mbapat ba arène ban victoire moo la gën a neex sa carrière a neex sama combat a neex a waaw a neex sa carrière a neex sama bi bi nga dalee bëree ba arène ban défaite moo la gën a ma doon bi ma bëree booy pour la fii kaaraat géejawaay boobu damaa dem daanu gars yi bàyyi ma fi ma jàppale sama bopp bagage yi laa am jom ba tey gars yi bàyyi la fa non gars yi gore nag gars yi bàyyi la fa gars yi bàyyi ma nga dem bëre daanu gars yi bàyyi la fa boobu laa am jom ba tey loolu moo dem gars yi mere nañ la waaw xam nga lu tax ñu mere ma mooy damaa dem di bëre xam nga di def yëfu xale jàpp bu baax di dóor tànk far toog nga def di ko dóor tànk far nga toog far toog xam nga rek boobu boobu bëre bi na si man rek pour man nu ma jàppe nag war naa daan kon nga ne défaite bi la gën a métti sa carrière mooy bi nga bëre gara bi nga bëre garage garage géejawaay mbabat boobu damaa dem xam nga arbitre bi soufflé may bëree xale quoi yëfu xale jàpp kenn xamul lu may def foofu jàpp bu baax jàpp bu xamuma lu ma def daal man naan damay dóor tànk far toog gaa yi wan ma ginnaaw ma da man maa dajale samay bagage ci mu gaa yeeg yëpp sol ko sama bagage jàpp ko dem ñibbi mu tëdd tëdd nelaw ba cinq ma du matin mu yeewu jooy jooy yu metti dem géej boobu laa commencé nag xam ne man làmb amatul foo ko wax mu jël ko au sérieux moom maa ngi sant yàlla parce que xam naa li may daan li ma daanoon moo tax ma ne naa boo yi defet neexul waaye baax na ci mbër mo defet day defar mbeur mbeur mbeur mbeur bu ndaw booy doo ko bo tek lay victoire do xam fo nga daanu daan bobu non mo lay defar mo lay def mbeur te san na yalla nak bu mako amé ci mbabat instant ni arène bi mooy loolu de boy nañu wàcc très bien ça question suivante bi rakki ji da ngay seetaan football football football nak limako ma bari wut de koy koy bari wut mais da ngay seetaan dama koy seetaan ban ban équipe ngay supporter Barça Barcelone wa Barcelone ngay supporter Euh, mën nga ma limal cinq joueurs Barcelone cinq joueurs. non Barcelone moom dama koy supporté rek waa mais. mënu ma tax ah, naa kay équipe booy supporté su war nga ko mën a. billaahi Messi rek laa ko mën Messi rek kese. billaahi non mooy loolu. Barcelone nga ne mooy sa équipe moom ngay supporté nga ne benn joueur nga fa xam mooy Messi. Messi rek laa ko yi Messi mooy lépp. waaw merci merci soo jibul Barcelone daal ngay supporter Messi nga fa xam mais euh, euh, kan mooy sa joueur préféré àdduna wëndal ko Sadio Mané waaw mooy sama joueur parce que Mané mooy sa joueur parce que nit kenn mënoo am ba am ba ba am lu gën li nga li nga dëkkal quoi parce que Sénégal dañ ko war a ñaanal mu egg fay fi ñoom Messi egg fi ñoom kii mënoo am lu gën sa réew sa réew mënoo am lu ko gën doublé woon na leen ñoom ñëpp gars yi dem teg ko place fekk première place ballon d'or bi dañ ko jël rek jox ko ko ne Sénégal ñu jël classé ko position. sama joueur mooy tamit un joueur sénégalais parmi les quatre meilleurs au monde rek Sadio Mané euh, champion la dañ koy ñaanal parce que Sénégal la xam fi am xam na fi du def lu leer ñu gis kon parce que lu lu rek ñun lañ question suivant? kan mooy sa waykat Sénégal fii kuy way nga kontaan. sama waykat waa man moom ndongoloo rek laa bëggee. ndongoloo sëñ Fall. waaw boobu moom mooy sama lépp. mooy yow waane nga de parce que yow 16 ans ku ko génne say at moo ci def. su ma la génnelee sama téléphone ndongoloo rek nga fi fekk. mais ndongoloo ba mu génnee sa ak léegi ça fukki at ak juróom-benn yow fukki at ak juróom ku ko génne say ñaata moo ci def. loolu dëgg la mais ndongoloo dama ko déglu waayam di jariñ jariñ boobu mooy jariñ moo tax ma bàyyi lépp téye ndongoloo

série sénégalaise yi fi jot a jaar ak yi fi nekk actuellement ban mooy sa série série yi non bu ñoom saaneex bi neexoon na ma de bi wiiri wiiri bi waaw boobu ma ko daan suivre waaw mais boobu ba léegi nag temps boobu awuma ko ndax entraînement li <laughs> jaay man làmb rek laay suivre saa yi nii nii làmb rek laay suivre ba ma pare ji wiiri wiiri laa gëj a suivre leneen làmb lamb rek mais daal wiiri wiiri moom mooy sa mooy sa série préférée moom daan naa ko seetaan mais ba ma ko ba mu jeexee bi nag laa commencé nag

Pour foofu moom ma gën Sénégal nduuf question bi leer na réponse bi leer na question suivante bi Sénégal bokk ci ban pays mo la gëna neex ci aduna bi euh rew bo xamne da ngay rêver un jour teg fa sa tank États-Unis waaw États-Unis ci kanay waaw kanay yi xam mom ma moom kaana quoi non mais yow ba yow jabu Baay Faal nga yoro jabu yoro jabu kaana xol ba fal ni ne ba waaw gis nga sañ jam bi ni jam bal ba caata dugg kaana ba waxtaan ak benn mbeur comme ni aligné alignement Baay Faal na na ma na ma États-Unis laa bëgg dugg ma ne ko sa waa ji yow yow jabu Baay Faal nga mu ne ma grand bi sama kaasu café bi ma États-Unis foog ma dem naa ko loolu lim kooku li wax laay delloowaat kaasu café bi moom foo ma dem États-Unis naa ne ko billaahi dama koy réewee euh, ba tey ci question réponse rakk ji instant bi nii ma wax ak yow nga liggéey tekki dal ci alal ju bari lan nga ciy njëkk def tabaxal euh, sama yaay laa ci njëkk teral sama yaay dama ko bëgg a teral quoi moo tax ma dugg si làmb waaw sama njëkk teral yo ko ba pare téral ñu am dafa am ñoo xam ne dama la war téral ci lamb quoi parce que dañuy sonn ci man waaw. question suivant bi ni ma wax yow nga xey un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi lo téré ñu jëlé ko fi lan nga fi jël. dama téré ñu jëlee ko fi waaw li may njëkk a teree njóge mooy ngóor jigéen ngóor jigéen laa jëlé njëkk a jëlee. waaw waaw ñu jëlé fi ngor jigéen quoi parce que fi ni xama rek fi dëkku diiné la quoi parce que suñ dañ fay am ay li yu baax. suñu maam borom Touba dafee nekk suñu maam El Hadj Malick xam nga waa ñeseen nii ñëpp daal xam nga di leen ñaanal jàmm ñun ñëpp waaw dañ fay nekk waa kon réew mi jàmm fi war a am mais xam nga Sénégal yi mën a daal lu Sénégal daal lu lépp lañ mën a wax waaw mais yàlla ñu yàlla defal jàmm rek. question bi leer na réponse bi leer na ba tey ci question réponse euh, rek ji euh, dama naan bi nga juddoo ba tey ji ma wax ak yow ban jour moo la gën a neex ci àdduna ak euh, jour boobu lan nga dund. gën a neex ci àdduna. lu ma gën a neex si àdduna nag mooy xam nga man damaa juddu rek bëgg làmb mooy jour ma njëkkee am victoire loolu dama guddi googu noonu dama nelaw quoi. première victoire. sama première victoire arène boobu boobu dama ba léegi nii dama koy feete dama kontaan parce que xama dama doon toog di seetaan làmb di gis Bécaye mbay muy toog ma naan Bécaye mbay mi kañ laa war a dem ba toog ak moom mooy may jox micro may gërëm quoi moo tax keroog ma bëree ba daan nii sama xol dafa sedd ma toog Père Bécaye toog Modou Mbaye toog. waaw ah, kon loolu dama koy sante yàlla quoi parce que lu ma doon rêvé la waaw di ñaan yàlla li si kanam nag daq li si xamoon question bi leer na réponse bi leer na bi nga juddoo ba tey ji may wax ak yow ban jour moo la gën a métti ci àdduna ak si boobu lan nga dund jour ma gën a métti ci àdduna mooy bi maam Saliou wàcce waaw booy jour boobu tamit boobu xale nga de xale laa mais jëm jour boobu maa ngi koy fàttaliku nii ça plus de dix billahi maa ngi koy fàttaliku li ma lay jour boobu noonu xam nga lan la doon def ay mbapat lañ doon def waa lamb yu ndaw mam saali wacc dëkk bi niis jour bi yéeme na ma ngay koy ko bu baax wa jour bi nek na jour bu ma gën a metti sama aduna sama rek ce jëmm yoy dafa nekkon luñu bëgg dal parce que dafa défar ndaw ñu wa wa mam saali wa ça fait partie de la vie euh ben instant rak ji ben télé ñaari télé face gis nga fi ay jeunes espoir yo xam ne mën nañ té lamb ji un jour bu baax gis nga fi ay jeunes espoir yo xam ne mën nañ dem bay fay ko ay centaine de millions fii laay walaay gis na ko ku ci mel ni général 2. général numéro gëm nga ni mën na téye làmb ji. loolu kay lu ma gëm la. yan qualité nga gis si général 2 bu Fass. waaw li ma gis si moom xam nga xam nga koo xam te ni da nga ñëw nekk tout tànk mu yar la nga nekk ci moom quoi defandoo moom lépp contact entraînement lépp tey lu ma mën ci bëre laa la moom la quoi kon koo xam naa leen ne ci moom moo tax buy bëree dara du ma jaal xam naa leen ne moom xam naa ne moom incha allah bu ko yàlla la fa lay cat dina doon champion mën na ko njëkk a fii bentali quoi.

xam nga ay tolof tolof mi ngi koy dal waaw mais loolu da koy yeeg waaw gëm naa ne incha allah mun a nekk champion ku ci mel ni waaw ku ci ku ci mel ni kii Siteu bu Saalum. Siteu bu Saalum mi ngi fi tout près mi ngi fi tout près. góorgóorlu mi ngi kay. ko kay mi ngi góorgóorlu bi mooy dama koy gën a ñaax rek. parce que waaw bu gën a yokk parce que gis naa li ma gis si moom combat bi passé incha allah lu mu ci gën a teg rek benn dali na ay champion quoi. waaw foofu lamb ji yàggul sax maa esaat parce que ñooñu dañoo nekk ay grand yoo xam te ni seen xam nga dañoo yoroo seen keppaar quoi waaw gis leen ñuy def. nga gis ci Siteu bu Saloum ba tax nga jàpp ne war na mën a téye lamb ji. waaw Siteu bu Saloum bëree Siteu bu Saloum dafa mën a bëree macha allah dafa mën a bëree dafa mën a bëree moom loolu moom. ñeme entraînement. waaw gëm gëm lamb xam naa bu baax billaahi dafa mën a bëre trop waaw bëre moom mën na ko macha allah ba ko yàlla defalee jàmm lafal ko cap mën na nekk téye benn tali bàyyi xel Siteu bu Saloum eh, yow sa wàllu bopp mbër yi téye làmb ji mbër yi nekk ci kaw a kaw a kaw mbër yi téye làmb ji kan nga ci rêvé un jour arbitre sifflé génn seen diggante nga war a bëri. waaw xam naa ay eh, kii nekk ci kaw ñu nekk ci kaw ay ñoom moom quoi parce que sama royukaay la mm-hmm. waaw dama rêvé bëri ak moom. waaw sama royukaay la. da ko nangul li mu doon. waaw li doon dama ko nangul. a

foofu <laughs> jëmul mais raga ji est ce que xam nga li la yóbbu foofu niveau bi Ama Baldé toll xam nga la fa yóbbu li ma fa yóbbu mooy gëm sa bopp li ma la wax sàng rek nee naa la loo boo gëmul sa bopp mënoo am dara da ngay gëm sa bopp ñi ma ñi ma jël risque ay mag rek laay toogal da ngay gëm sa bopp ñi ma jël risque fonk sa bopp xam li nga bëgg xam fi ngay sa parce que dafa fiir da ngay am xam te yow yow da ngay yow da ngay xam ne fii yaa fa mën a yóbbu sa bopp parce que làmb dafa metti waaw. dernier question lan mooy sa mbébét ci làmb ji. soo mbébét wax naa ko sànq man man làmb dafa bari ay nit yu ciy sonn dafa bari ay nit yu si man ay tutu tutay xale nee naa la ñu ne amuñu ay milliardaire amuñu millionnaire booy ndaw ñooy jël seen seen xaalis si ay fukki dërëm boroomi juróom loolu lañ am ay cent franc kon ñooñ ñooñ damay rêvé yàlla defal ma jàmm may ma wér ba ma tekk si làmb teral leen quoi xolu yéene bi ñu am si man. ma delloo leen ko waaw ak ay waa bari na daal waa loolu mooy mébét waaw mooy mébét nak ji damay faral di wax naan séeréer dem ci benn épisode yow c'est la première fois may déplacé wu ñëw seet si la mais xam naa du mujj tey tey li ma indi woon ci question fii laa koy yemale ñu waajalaat leneen lan lan ngay tàggatoo waa li may tàggatoo mooy damay sant rek dag may bàyyi ma sant nag waaw ku ci jàpp sant ko gërëm ku ci jàpp dañoo bari ku ci mel ni lëus alaaji kooku amuñu fayam quoi parce ginnaaw yàlla ñu duggee si làmb di bëre moom la waaw lu ñu def si làmb rek bu duggee si làmb bañ tey jii nii bañ toog bis bii mën naa ne yàlla suñu borom moom pare na mais lépp ginnaaw yàlla moom la ko wax di ko sant bu baax di ko ñaanal jàmm ba mu gën ñoo mën a jàppale parce que Leuz amuñu fayam man ak sama moroom yam ñi muy jàppale bari na du man rek dama koy ñaanal jàmm li mu bëgg moo ko xam yàlla ko yàlla defal Leuz aw ma fayam di sant général 2 mi nga xam ne su ma amee combat ak ma ñàkkee combat lépp da ciy jàpp moom it ma fayam di santu njool tugalóor combat bi jàpp na si moom général de dañu ma doon teg lu metti njool tugalóor waaw borom asalem mooy kadeer waaw booy tugalóor booy tugalóor grand boobu grand bu baax la su ma amee combat waaw bu ko neexoon mu ne booy bi xam nga xale la nii mais du ko def day ñëw mel ni waaw ku ma gën a nekk xale di ci sonn di kaf ak man di ree waaw comme comme ñooñu mënoo leen fay su ma fa jógee damay sant ku mel ni Tafa Tafa mag aw ma fayam day sonn ci man su ma amee combat regroupement bi yëpp xaalisam lay génne def ci man xaalis bu bëri kooku dama koy ñaanal jàmm li mu bëgg moo xam yàlla ko yàlla defal di sant Baye Serigne bu baax Baye Serigne moom it aw fayam day sonn si man xam nga di sant sama mag Mor ñoom Thieli xam nga ñoom Wës ñoom Boos sama rax Cheikh su ma fu jógee di sant sama mafia bi mafia tout staff bi ñoom du ma leen sant góoreewu ma parce que ñooñu avant lamb après lamb xam nga ñooñu laa loon la wax ñooy ñëw ñooñu ñoon dañuy sonn si man bu dul lamb ak lamb di am ak xam nga kon ñooñu mënu ma leen ñàkk may sant ku ci mel ni maam Fallou Serif Baba Seye Ndiir Aziz Ndiir ñoom ñëpp maa ngi sant bu baax a baax a baax parce que dañuy sonn si man di sant nag waa Nduuf sama waa dëkk parce que mënoo am ba ba am fu gën a rëy fu nga juddoo parce foofu laa juddoo waa di ñaan paa yi ñu jàppale ma paa yi Nduuf yëpp ñu xam ne man jeune laa quoi dama fi ma teg sama bët si làmb waa Nduuf loolu laa ne wax ñu jàppale ma jeunes yeeg ñëpp ñu jóg jàppale seen doom xam nga waaw di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp di sant waa Bentali yi nga xam ne su ma jógee ñu jóg Bentali bépp maa leen sant di leen bëggee di leen ñaanal jàmm di sant sama waaw sama waa koñ waagu ñaay waagu ñaay bi yëpp maa ni béggee di sant fi may joobe Liberté 6 mécaniciens yi nekk foofu yëpp maa ni bëggee ku ci mel ni Ibra Ibra Pënu Baye Fall Aziz ñoom Pape ñoom am sa café waa café ga xam nga garam Mercedes ñoom Baye Fall ñoom Baye Diouf gaa yëpp maa ni bëggee waaw di gërëm di bëggee ñoom pap gaan bi maa ngi koy sant bu baax parce que tey jii bu ko neexoon tey gàlleen fii mais duñ fi defee émission bi mais daf ñu dalal xam nga di sant kii Paul moom moom it yàgg na ci affaire bi yàgg na ci sonn waa di ñu jàppale bu baax Sirif Sarab mooy maa ngi koy bëggee bu baax waaw maa ngi di ko ñaanal nag moom mi ngi ci instant mi ngi ci mbabat yi mais xam naa incha allah moom day ñëw waaw di ko ñaanal jàmm grand bi maa ngi koy bëggee bu baax waaw di la bëggee bu baax gaan mi ngi ah mi <laughs> baax moom it waaw borom baax la waaw di dafa jàpp tey ci bés bi di sa jàpp di bëgge mère ayu këram laa nekk bu toggee lekk lekk bi bala kaa tëji damay woo ma lekk bu suur waaw mère ayu aw ma fayam yaayoo ma quoi di sant may père jàpp dafa tata Christine njaago yi aw ma seen fay gaa ñoo yaakaar ne man aw ma supporteeru njaago kese la waaw njaago yëpp maa ni bëgge ñoom Christine ñoom nene bunaama ñoom kii kemb xama ñoom nee na ñëpp maa ni bëggee waaw di bëggee nday faatu sama jigéen parce que combat bi di say jàpp ñu jóge ba yëmbal parce que alxuraan dajal lu mu am lu mu am indil ma si combat bi kon loolu mënoo ko fay quoi maa ngi sant bu baax di sant waa gàllem waa yëmbal gépp gaan di bëggee nag yow parce que yow borom baax nga ko waaw da ngay li ngay def nii day suqali làmb parce que da ngay xool mbëri ndaw nga xam ne amaguñ dara defaguñ dara nga leen di seet si xama di leen xamal askan bi quoi. mbër bu ndaw bi mooy màgg doon mbër bu mag. waaw loolu moom gars yi daan nañ ko wax parce que ñoom Balla gay 2 ñu fi nekk nii tey ñu leen tudd fi ñu jaar lañ jaar kon tey dañuy ñaan yàlla dem ba toog fu raw fi ñu toog man loolu laay reefe si làmb di la bëgg bu baax di bëgg ñëpp ñu fi waxee loo xam te ni safaan lañ lañ ko jéggal parce que nit matut ay ndaw lañ dañuy doog a jóg suñ fi waxee loo xam te ni rafet na nice di ñaaral ñëpp jaam di wax samay supporters ñu waaj te xam ne caatu moom làmb rek la bëgg képp kuy bëgg a nag maa ngi lay bëggee jaajëf gars yi rafet na à sa fin sama gars yi tey ñoo ngi woon fii ci ben tali ñewon setti l'espoir de ben tali ñaari tali le protégé de général numéro 2 Thiatou face néna mom moy mooy Thiatou écurie Fass moom la ñewon setti tay tey séq ak moom waxtaan avec un palmarès qui force le respect franchement parler parce que avec un palmarès de deux combats deux victoires mérité na ñu xamé ko ragné ko bàyyi ko xel bu baax a baax a baax mi ngi nii toog nag. waratul sumeeku taxaw ci géew ñu ne kii kan la mais bu sumeekoo taxaw ci géew nañu caatu faas a ngi ne nee na mbër yi mi ngi ñëw les adversaires waajal leen bu baax parce que ngi ñëw dal seen kaw promoteurs yi dama leen di lancer appel da leen ñëw di ko seet si di ko jox ay combat muy dugg ci làmb ji di bëre di wane boppam parce que instant bi loolu rek lay xaar pare na ay supporters pare nañu staff bi pare nañu li ñuy xaar mooy combat yi tegaloo ñuy dugg ci làmb ji di bëre di wane seen bopp caatu faas écurie faas moo nekkoon sama invité tey ma leen di joxaat dig daje ba beneen yoon rek ziar ziaraat jaa sama gars yi I Ajamani.